li nga xamante ne mooy équipe bi nañ koy xoolaat bu baax a baax surtout aussi entraîneur bi bu koy mën di yokk xalaat dafay gën di baax rek ndaxte à chaque fois ñu nekk di critiquer di critiquer aussi te dañu xam raison bi tax moom muy placer joueurs yi donc loolu war nañ ci bàyyi xel di ko di ko càmbarlu bu baax voilà mi ngi wax dañu koy ndar képpee foofu daal di mhm. fàttali le naufrage du bateau le Joola c'est vrai que date bi yeeg see goutte waaye euh, li tax ñu mën ko indiwaat mu bokk ci actualité bi ma fàttali nii dans le reste de l'actualité euh, le 19e euh, la 19e commémoration de cet mooy le bateau le Joola maritime qui avait fait près de 2000 morts coïncide cette année avec le Magal de ci dafay tomber bés bi c'était le 26 septembre mhm. et cette année le 26 septembre dafay coïncider ak màggalu Touba te ñu xam na ni su ñu mag yi lii mooy su ñu chance waaye suñu chance boobu dañ ko war a xam wormaal suñu kilifa yu baax yi nga xamante ni ay boroom barke la te yàlla leen fi wàccee baaxee ñu ko ñu euh, ñaan rek ci seen barke euh, barke yàlla na yàlla maasale bépp naqar ak bépp métit ak bépp jàngoro bu sonal Sénégal ak sénégalais yi te nag yàlla yokk xolu muñ ñi nga xamante ni ci ñàkkoon ay waajur parce que le bateau le Joola quand même c'était vraiment euh, un choc et un coup mhm. dur pour le Sénégal kenn ku ci nekk amoon nga ci tante bàjjen cousine yaay papa wala doom euh, metti woon na loolu Pa da doon wax ne moom 26 euh, septembre bi mu juddoo ci la bàyyi di fêter anniversaire am depuis bateau le Joola yaakaar naa ne bu méngalee euh, daaw dañ ko ko forcé feetal ko ko mhm. ren bu ñëwee tombeek magalu Touba bésub ñaan ah dañuy am jort bu rafet nii yàlla dina dina oyofal suuf si kaw ñooñu mm-hmm. ba pare xare leen ci àjjana yu gën a kawe dooleel ñi nga xamante ne ñoom ñoom la ñuy bàyyi ci seen i ginnaaw ñàkk moom neexut waaye nag jaam jaam rek la mën a doon yàlla mm-hmm. rek ay buur te mooy dogal Euh, te nag ñun euh, jaamu ko rek li ñu am te moom rek li ñu mën justement prétextant aussi le premier jour du safar dorénavant à partir d'aujourd'hui dañuy wormaal bés bi chaque jour dinaa leen diktal publier reportage bu leen di wax bés bu ne ci la ak lan moo waral 18 safar euh, bi nga xamante ni moom moo di 18 euh, safar euh, ce sera un élément ce sera justement euh, xalaat ñi ñu ci ëpp xam-xam waxtaanal ñu ci gën ñu cee yokk ñiy waajal ngir dem Touba ñu gën a xam ñi xamutoon gën a xam bu ko defee rek lii mooy njëriñu la chaîne leader ñu déglu leen te ñëw. ñu ngi leen di ziar di leen màggal ci weeru tedd bi mu weeru safar seen mbokkum taalibe Alassane ñi ngi chercheur murit moo leen di indil benn point ci yoonu murit ci wàllu taarix di leen ko leeral tey mu mel ni dañ leen indil maanaam euh, Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol bi nga xam ne Serigne Touba Mbàkke Xaadim Rasulillahi foofu la gënee àdduna en 1852 ñii ni 1853 Mbàkke Bawol boobu lu waral ñoom ñu nekkoon Mbàkke Bawol mu ne xam ne ne ñoom dëkkuñu Mbàkke Bawol dañu am faneen fu ñu jógee ñëw Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol boobu nañ leen bëgg waxtaanal lu waral ñoom ñu sax fa ba sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa Mbàkke xaadim rasulillahi gane fii di gane fii nga xam ni moom mooy Mbàkke Bawol kon ñu tàmbali ki nga xam ni moom mooy Maam Maaram Mbàkke Maam Maaram Mbàkke mi nga xam ni mooy maami Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasulullah Maam Maaram Mbacke eh, Maxtaar Numbe bi nga xam ni moom mooy créateur de Koki Mame Lamine Sarr ñett ñooñu ku ne xam ne ne ñoo jàngandoo si Serigne Massamba Thiam fii nga xam ne moom mooy Thiamène bu ñu jàngandoo Serigne Massamba Thiam ñu wëlërante ba yàlla def ku ne dem sañ sa kër sa kër sa dëkk nekk fa di jàngale yor sa daara ñépp xam na ne Mame Lamine Sarr mii nga xam ne mi ngi nekkoon caareen jàmm bu mu nekkee caareen jàmm maanaam mu nekkoon si ëtt bi nga xam ni dammel bi Amari Ngoone Ndeela fu mu nekkoon ñoom ñoo bokkoon ëtt mu ne xam na ne dammel Amari Ngoone Ndeela en 1790 da nekk dammel bi Kayoor bi Mame Lamine Sarr nekkee foofu ku ne xam na ni buur day fiir Mama Lamine Sarr nekk fa taalibe yi bëri lool mu siiw si wàllu xam-xam mu bëri woon xam-xam macha allah waaye ki nga xam ne mooy dammeel Amérique Ngoné Ndeele am fiiraange si digganteem ak Mama Lamine Sarr ak mbooloo mi ko wëroon te moom mbooloo moom melul noonu wala mbooloo yi tolloo noonu mu am fiiraange si lool Damel Amari Ngoone Ndeele yebal ku ñuy wax ma Massamba Fara Massamba Fara boobu moo new si Mame Lamine Sarr ni def fay jàng ñii neenu jàng na fa def na fa at ñii neen def na fa ñaari at waaye li wérti wóor mooy Massamba Fara moomu nekk na si Mame Lamine Sarr ñi def fay jàng ba benn bës ñoom ñaar kese ñu wéet si tool yi Massamba Fara boobu faat ko wax nañu def ko rendi foog nga xam ni mooy Mame Lamine Sarr bu ma ko faatee ñëwoon na si damel Amari Ngoone Ndeela ni ko naa la Mame Lamine Sarr dama Amari Ngoone kontaan si loolu moom ba yóbbu ko Kaba Kaba boo ñëwee wati Bambey foofu la nekk def ko muy jiitu mu jiite Kaba si kontaan gu ma kontaan di si moom bi yàlla defee dëj boobu dëju ma Lamine Sarr boobu kejoole kajoor bawal njàmbur waalo sëriñ si yëpp dajaloo ñëw di jaale si Mame Lamine Sarr seen naata ngoom boobu ma xam ni dañ koo faat ba ñuy jaale see si dëj bi ñu toog di waxtaan bi ñuy toog di waxtaan sëriñ si ñoom seen biir waxtaan ni ah Damel bii de mi ngi bëgg a ëppal ndax suñu naataangoo bii mu fàtte lii mu def di de teg ko fenn ñuy waxtaan noonu si biir dëj bi ba ñu ñun de dañu war a taxawal sax xare ba fayu ci lii mu def suñu naataangoo bi nag ci bu paree si moom si ñun la jëm si. bi yàlla defee sëriñ si ñu dajaloo waaye ku ne xam na ne sëriñ mënul xeex cedd yi ñoo leen di dàq xeex sëriñ si nag woo maam maaram ni ñun dañoo bëgg xeex bi nga ñëw bokk si xeex bi maam maaram Mbàkke gàntal ñu mu gàntalee ni leen. yéen da ngeen di fayu lii du xare lii du jihaad ndax dañoo rey suñu benn naataango ngeen bëgg a fayu kon lii du jihaad man loolu duma ci ñëw maam bu mu gàntalee ñu teg ci at atub yàlla bu ñu si tegee at si la maam maaram Mbàkke ñëw di jaale si maam Lamine Sarr boobu ñëwee di jaale si Mame Malamine Sano bi mu jaalee ba pare Damel Amari Ngoone Ndeela yëg ni Mame Maram mi ngi dugg si ëtt boobu mu woolu Mame Maram bi mu wooloo Mame Maram am na ñu ni Mame Maram bul dem ndax kii boo demee dalay fàtt def la ni Mame Malamine Sano mu leen mën dinaa dem yàlla defee ñoom ñaar ñu dem ñu daje waxtaan Mame Maram Mbàkke ni ko sëriñ si nga jàpp da leen di bàyyi ndax lii du xare du jihaat ba ngay jàpp ay jaam kon lii foog nga bàyyi leen danga leen war a bàyyi ñu dem bi yàlla defee Amari Ngoone Ndeela def li ko maam Maaram Mbàkke wax mu bàyyee sëriñ yooyu nga xamoon jàppoon na leen bëggoon leen jëf jaam mu bàyyi leen libéré leen ba Amari Ngoone Ndeela rafet lu na xelu maam ni ko yow de sa xam-xam dafa sell macha allah yow de dama laa war a téye fii sax su ma la téye fii nga bokk si ñi nga xam ne dañ may conseil ku ne xam ne ni buur dana na am ay conseil looloo waral maanaam maam maaraam ni ko man de mag laa fi ma toll mënatuma parce que boobu c'était en mille huit cent mille sept cent quatre-vingt-quatorze ni ko man mag laa fi ma toll nii mënatuma nekk di mënatuma nekk di di naan man jolof rek laa mën a des sama ëtt rek laa mën a des bi yàlla defee nag mu ne ko léegi dinaa la jox sama taaw du Farimat wax nañ nu bés boobu damay Amari Ngoone Ndeela si la daggal maam maaram fii nga xam ni mooy Mbàkke Bawol maam maaram jël taawam Ahmadou Farimata jox ko wax nañu bés boobu rek sañte nañ soixante dix kër si bés boobu kese sañte nañ si soixante dix kër si la Ahmadou Farimata nekk foofu fi nga xam ni moom mooy Mbàkke Bawol Ahmadou Farimata bi mu faatoo ki nga xam ne mooy Ibrahima Awa Niang mi nga xam ne moom it doomi maam maaram la moom it nekk na fa nekk na fa 30 ans Amadou Farimata def na fa 30 ans Ibrahima Awa Niang def na fa 30 ans ñii neen ñu 28 ans mais li wér te wër mooy fanweeri at yi moom bu fekkee matul tamit li si manqué du bëri. kon Ibrahima Awa Niang bu mu jógee foofu si la maam Ballam sa Mbàkke bi nga xam ne moom mooy caatu maam Maaram Mbàkke maam Balla moom mi nga xam ne moom mooy jur maam Mor Anta Sali jur Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasulullah maam maam maam maam Balla moom mi ngi gën a àdduna 1794 bu si tegee ñaari at si le ñun mi ngi gane àdduna 1786 bi ñu sañcee Mbàkke Bawol ba mu am ñaari at si la Maam Balla moomu gane àdduna Mame Balla moom ba muy moom Mbàkke Bawol coow amoon na nag bi coow amee bi yàlla def coow loolu weesu si la moom si la moom Mbàkke Bawol nekk fa xalifa gérer ko looloo waral mu gëm mu nekk Mbàkke Bawol ba Maam Mor Anta Sali Mbàkke ganee fa àdduna ba sëriñ Touba Mbàkke xaadim rasulullahi ganee fii di àdduna muy fii di Mbàkke Bawol kon lii mooy seen lii mooy seen sababu dëkku Bawol lii mooy seen sababu ñëw Bawol ba Serigne bi xaadim Serigne Touba Mbacke xaadim rasulullah gane fii eh, fii si Mbacke Bawol gane fi àdduna kon Mbacke Bawol boobu ni ñu leen doon indil taarixam indil leen histoire kon lii nga xam ne moom nañ leen indiloon kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di jox dig daje bu suba incha allahu rabbi mi nga ko di ko jaajëfal bu baax a baax moom Alassane Ning mii nga xamante ni dikk na ak ñun ci lii di euh, bërëb boobu di Mbàkke Bawol euh, kon képp kuy dem Touba fi ngay dalati incha allah di nga xam fan la euh, te naka lañ ko sànci dafa baax ndax nit loo xamut rek xëy na doo ko mën a jox wàccuwaayam waaye boo ko xamee di nga gën a yokk jox li nga xamante ni moom moo di wàccuwaayam si notre façon à nous à partir de ce premier safar de continuer di dundu màggal gi ak askan wi waaye tamit di sàkku si barke Serigne Touba aajoo ak bépp euh, rag-ragu xol bi nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku ci jamono jilee ñu dugg nag ci biir actualité euh, daal di dalal euh, ki nga xamante ni moom moo di ah, Mouhamed Diallo alors da nga doon wax ni suba da ngeen di amal marché yéen waa ñoo lànk ngir ñu wàññi denrée alimentaire de première nécessité yi nga xamante moo di dëwlil ceeb ak suukar yokku